mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen seen YouTube Kawtef TV international ginnaaw bi bàkk bi daanoo ñu fas yéene na jukkil Kawtef yi fi jot a ruuse ci kàllaamay wolof

la taxoon mu tudde ko soppi xam na ko mbir yi foog ñu soppi ko mbir yi foog ñu soppi ko ña fa nekk ña fi nekkoon nag ba tey ne soppi du am ñoo ñoo fi ne ba tey nee nañ mbir yi kenn du ko soppi dañ koy doxale nii ñu koy doxale il faut que ñu soppi ko donc empathie dañ ko war a indiwaat ci politique mooy yërmande yërmande dafa ñàkk lool ci politique politique it kenn du ci ñëw ngir defaru dañ ciy ñëw ngir defare kenn du ci ñëw ngir yàqe da ciy ñëw ngir defar kenn waru cee yàqoo kenn waru cee yàqee kenn waru cee yàqoo kenn waru cee yàqee politik teggin la politique xam-xam la politique itte la loolu moo tax ñun de ku ñuy xaar ci xaste ak sosalaate ak waxal nit lu ñu wóorut ak ŋàññante doo ci gis te lu muy maye duñu ko am waxante lu bon xastante sosalante ñàkk teggin ak worma lu muy maye duñu ko am waaye nag teggin ak xam-xam ak itte bu neexee yàlla lu muy maye dinañ ko am ñoo ngi gërëm encore une fois nous sommes gunge ci liggéey bi ak ñi ñu ci àndal ba ñu jógee ba tey di leen assemblée nationale position biñ statut biñ fay am askanu Sénégal tànnal mooy kat taxawu combine politique wut ay privilège wu assemblée nationale wut ay honneur yóbbu ñu assemblée nationale wut defar suñu dundin lóbbu ñu assemblée nationale moo tax keroog bi ñu yëkkatee suñu loxo ñu ne dugg rek yitteeluñu waaye duggiin bi moo ñu yitteel te li ñu ci bëggoon mooy bu ñu duggee mën a am suñu liberté bu mën a tax ku fa mën a toog ñu mën a wax ak yow li nga xamante ni moom mooy dëgg ak yóbbante askan wi askan woowu voteel ñu ak ñooñu nga xamante ni voté luñ nañ leen cant goo xam am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem te dinañ dellusiwaat ci yéen ngir sant leen gërëm leen waaye déglu leen dinañ ñëw ci gox-goxaan yi gën a sori dinañ ñëw ci pàkk yi gën a sori ngir yëgal leen yéen ñi ko ci lu ñu ne ñi yëgoon ci lu ñu ne ñu feddali leen li ñu ne déglu leen tijji suñuy nopp dëkk leen suñuy gafaka ngir ngeen wax ñu li nga xamanteni xam nañu ko ba pare ngeen fatali ñu ko muy li ngeen di dund ak seen dundin ngir ñu ñew assemblée nationale eumbu bobu nak ñu tek ko fa lepp lu am njëriñ ñu waxtane ko lepp lo xamanteni amalul njëriñu askan bi yalla buñ ñu ci nek te buñu sañon sañoon képp kuy ñëw ànd ak ñun te ñoo ngi tàllal suñu loxo doomu Sénégal yépp ngir lii ñuy def ñu gën ko mën a def ñi nekk ci biir réew ak ñi nekk ci bitim réew ngir ñu gën ko mën a def ngir ñu gën ko mën a taxaw ngir ñu gën a mën a saytu Sénégal bi nga xamante ni moom la ñu bokk te assemblée nationale dafa am solo c'est le lieu par excellence de la démocratie du débat démocratique moo tax boo demee dëkk bu mel ni France tey bu ñuy financer sax parti politique yi dañ leen a financer en fonction ci ci ci seen représentativité au niveau de l'Assemblée nationale assemblée nationale kon ken waru ko tiaxane ken waru ko foy ken waru fa nek nek fa tatchu ken waru fa nek saga kep ko xamanteni ni ak saga ak xaste japp nga ne moy tax ñu yóbbu la fa xamal ne ko wor sa askan nga kep ko xamanteni ni it nañ la ñongi lay ñaan ñala tan bu len wor bu tass sen yakar kon ñi ñu tan tay dañ tànn ñun ngir jàpp ne lii fi lu ko gën système bii dañ ko war a soppi soppi bu président Abdoulaye Wade dañ ko soppi li fi dañ ko bi baaxul choix bi choix des hommes comme des femmes dafa des il faut que nous accepter jël les meilleurs sénégalais confier leen les postes les plus stratégiques pour ñu doxal ko ba encore une fois ñi nek ay xalé di jang ma ngi leen di digal ngeen gëna jang gëna gorgol ñi ci yor métier ma ngi leen di digal ngeen gën ko fonk gën ko mën te bañ ko tiaxane ñi nga xamanteni seen wayjur ngi dund ma ngi leen di ñaan ngeen fonk seen wayjur te wek leen fonk leen leen wek leen leen bëgg leen leen so bëggul sa wayjur so bëggul sa kër so bëggul sa espace immédiat mëno amal njëriñ penc ku la dénkit day nax boppam rek ku la dénkit boppam rek kon ndaw ñi bu leen kenn soriloo seeni waajur bu leen kenn foofu lay jeexale bañ loo senegal Sénégal dëkk bu màgg la yàlla defal nañu lépp réew mu yàlla bëgg la lépp am nañ ko booba ba tey li ñu sonal rek mooy dañuy dénk ay yaafus rek ak ñu ñàkk yërmande rek waaye lépp am nañ ko kon nañu góorgóorlu bu baax fonk li ma leen wax léegi li nga xam mënta ñàkk te dinañ leen taxawu dinañ taxawu culture bi ak ñi nekk dans les métiers de la culture dinañ taxawu sport bi ak ñu nekk dans les métiers du di ci yëngu sonn ci dinañ taxawu mbay mi waxatuma sax agriculture ñun on parle des métiers de l'agriculture élevage on parle des métiers de l'élevage pêche on parle des métiers de la pêche te loolu pour mu mën a am que le président de la république et le gouvernement du Sénégal convoqué sans délai gouvernement un conseil ministériel sur l'industrie parce que industrie mënta ñàkk un conseil présidentiel sur l'industrie kon loolu lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy dëggal la taxaw la kon ñun ñi nga xamante ni la coalition les serviteurs bi nga xamante suñu borom defaloon nañu tawféex ak soññuñu ak ñaaxuñu ak dénkuñu ñu jiite ko euh, ñoo ngi wax askanu Sénégal ne leen nekkuñu fenn nekkuñu ak kenn opposition Sénégal bu dëgër opposition opposition Sénégal bu dëgër boo xamante kenn du ko moom kenn du ko fooy kenn du jënd ngorom kenn du jënd yi Sénégal bu dëggu Sénégal lay doon bu Sénégal bu jox cër Sénégal lay doon bu ittewoo Sénégal lay doon fàtte boppam assemblée nationale ñun ay destin personnel yóbbuwuñu fa ay ambition personnelle yóbbuwuñu fa taxawal Sénégal moo ñu fa yóbbu te Afrique lii moo tax mu tardé on ne s'interroge pas on s'interroge sur le nombre de mandats mais on s'interroge pas du mandat qu'est-ce qu'on va faire du mandat

Euh, taxaway boo xamante ni bu am njëriñ lay doon pour askan bi di leen wax ne seen yaakaar yi dégg nañ ko xam nañ ko te duñ ko war mukk ci àdduna inshallah dinañ leen taxaw bu wér waaw dinañ leen bu wér dinañ leen yuuxule seen jafe bu wér saa bu ngeen gëstoo di ngeen ñu gis loolu moo tax liggéey bii ñuy def dañ ko bëgg ànd ak yéen moo tax ñu leen di tàllal seen loxo ne leen ñëw leen ñu ànd mën naa nekk ñu soppi réew mi teg ko ci yoon woo xamante ni wu mucc ayib lay dem ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax di ñaan yàlla mu yóbbuñu ci li nga xamante ni moom mooy rentrée parlementaire bu mucc ayib ñu dem taxawal leen assemblée nationale taxawaay boo xamante ni bu mucc ayib la boo xamante ni Sénégal da yàgg naa am euh, assemblée nationale waaye ñii ñu gis ñu dugg assemblée nationale bi ah gis nañ ci ñoo xamante ni de sunu yaakaar dal na ci lool ne du ñu bàyyi mukk Sénégal du ñu tas yaakaaru Sénégal te loolu euh, alal du ko jënd am na ci loo xamante ni alal mënu ko jënd yaakaar bi nit ñi am ci yow yaakaar bi xale boobu am ci yow doon la topp. doon la topp di la gëm la yaakaar la bëggal voté ak yow mag ñi di nekk ak yow kilifa diine yooyu woo la ne la am nañ yaakaar ci yow waaw loolu nan nga mën a dem nan nga mën a demee sàmm ko ci ab table di ko jaay loolu kenn mënu koo jaay di loolu amul njëg di loolu post jënd ko privilège jënd ko honneur jënd ko loolu benn njëkk rek la am muy ngeureumal yalla ni nit ki di woré suba ba ngon jot pour doge tandarma ak yu bax yoy ñuy doge non la nit di doge ci aduna ci woré ci yu bari yu bari dang koy wor ngir nga doge ngeureumal yalla ak ngeureumal askanu Sénégal kon ñoo ngi leen di xamal ne lu jitu ngeen ñuy xam ci toga ya togon lañu woron tay lañ ko gëna wor te incha allah dinañ ko ànd ànd bu mucc ayib maa ngi leen di gërëm di leen sant euh, di wax ne dama koy tënk rek en version française ci li nga xamante ni moom moo sabab li nga xamante ni moom moo sabab. Euh, la rencontre tout d'abord permettez-moi de remercier le peuple sénégalais dans son entièreté et son intégralité. sénégalais, Sénégalais, chers compatriotes, à l'entame de nos propos, rendre grâce au Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis aujourd'hui d'être devant cette auguste assemblée pour partager avec vous depuis cet endroit et parler avec le Sénégal entier et les Sénégalais qui vivent en Afrique et partout dans la